suñ néegu yaa Aïcha boobu nag fa la fa la xabru bi sallallahu alayhi nekk léegi waaye kër ga yëpp fii ñu toll nii moom mi ngi ci biir jumaa ji waxuma kër gi yëpp mi ngi ci biir jumaa ji waaye la doon Médine ca jamono yonent bi sallallahu lépp mi ngi ci jumaay Médine léegi la doon Médine ñu naan dëkk baa ngi nii lépp ngi ci biir jumaa ji nee na ñooñu dinañ dugg àjjana te kenn du leen xisaab kenn du leen mu jug dugg ci néegam dugg këram fa daxala manzila fa xaada annaasu fi ulaika alladina yadxuluuna aljannata bi gayri xisaabin wala azab saxaaba yi nag tàmbali di waxtaan waaw ñooñu ñan la ñii ne amaana mooy ñu njëkkoon a tuub ñii ne amaana ñu demoon ci xeex nanga kenn ku nekk daal di indi sa sa xalaat nee na fa qaala baaduhum fa laallahum alladina saxibu rasulallah ah amaana mooy saxaaba yi ama kooku moom yaatal na <laughs> dugal na ci boppam wa qaala baaduhum fa laallahum alladina wulidu fi lislaam ah amaana mooy ñi nga xam ne ci lislaam lañ judd mooy ñu mel ni ñoom Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Omar ah eh, Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Zubair sax moom bis bis ba yonent bi di egg si Medine fa la judd ci la judd moom bis ba yonent bi gàddaaye jóge Màkka di ñëw Medine bi mu ñëwee ba Quba ci la Aboubacar ñëw ni yonent bi sallallahu alayhi am naa sët ñëw ni Abdullahi ibnu Zubayr ibnu al-Awwam Zubayr moo jur Abdullahi ibnu Zubayr ibnu ni yonent bi am naa sët lu tax mu am naa ndax moo jur ndeyam moo jur asma bintu abibakar foofu la juddoo moo tax naan mooy ki njëkk a judd ci muhajirin yi ku mel ne Nu'man ibnu Bachir moom it ci bis boobu la judd ba ak see mooy ki njëkk a judd ci waa ansar nee na am ñu ni amaana mooy ñi xam dañoo judd ci lislaam falam yushriku billahi shay'an ñoo ñi nga xam ne jotu ñoo jaamu xeram jotu ñoo bokkaale yàlla subhanahu wa taala wa zakaru ashya moom daal toog nañ di waxtaan comme yonent bi nekku fa saaba yi toog ci jàkka ji kenn ko nekk di wax sa xalaat ba mu demee ba yàgg nag fa xaraja alayhim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnaat fa qaala ma alladi taxuduuna fii waaye yéen maa leen doon dégg ngeen di waxtaan ak di discuter rek ci lu ngeen nekkoon fa axbaruuhu ñu xibaar ko ñun kat li ñu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga demee ci lan nekk ñii nag nee nañ xëy na ñii la ñii ne xëy na ñii la ñii ne xëy na ñii la yonent bi ni leen hum alladina laa yarquun wala yastarquun wala yatatayaruun wa ala rabbihim yatawakkaluun yonent bi ni leen ñooñu daal xam ngeen mooy ñan laa yarquun laa yarquun mi nag riwaaya boobu am na am na wax ante ñoo ni ci sax muslim mais am nañu ne chad la bi wér moom mooy laa yastarquun léegi lan mooy différence entre yarquun ak yastarquun laa yarquun mooy du ñu dem di moccal nit ñi laa laa yastarquun mooy du ñu sàkku ko leen di moccal moo tax yeneen riwaayaat yi ñëw yëpp laa yarquuna nekku ci laa yarquuna nekku ci moo tax ñu bëri ci ulama xadis danoo riwaay bii indi laa yarquun chaz la chaz mooy sanat bi mën naa wér sanat bi mën naa wér ñi ci nekk ñëpp mën na nekk ay fiqaat mais dañuy wuutee keneen koo xam ne moo leen gën a dëgërle ci euh, nettali su ko defee la dañuy jiital kooko waxam bàyyi kii waxam ñu ni kon wax ji kenn du ko nangu te chaz dafa bokk ci mbir yi nga xam ni su amee ci xadis bi kenn du ko jël ci riwaay bii nag loolu am na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni alladina laa yarquun du ñu mocc du ñu moccal kenn wala yastarquun te du ñu sàkku ci kenn mu moccal leen wala yatatayaruun te du ñu gaafal ak bëri ci jamono ji tey lu ne la ñuy gaafal jigéen ñi dañuy gaafal góor ñi di gaafal ñëpp di gaafal jigéen ji dox di cap ñu gaafal ko ku sëy benn yoon wala ñaari yoon borom këram faatu ñu gaafal ko maam jigéen ju leel sax ñu gaafal la góor gu takk soxna soxna sa faatu ñu gaafal ko maam ci lépp la ñuy lépp nee na ñooñu day duñu gaafal wa ala rabbihim yatawakkaluun te ci seen borom subhanahu wa taala la ñuy wakkirlu gis nga lii moo tax mu indi xadis bi wa ala rabbihim yatawakkaluun bul fàtte ni ci buntu euh, tawakkul wal yaqin la ñu nekk yonent bi mu waxee loolu nee na kenn ci saxaaba yi ku ñu wax Ukaashat nu Mihsan mu ne ko udu llaha an yajalani minhum yonente bi ñaanal ma yàlla ma bokk ca ñooña ñooña ñan ñan la ca jublu mooy ñi nga xam dinañ dugg àjjana te kenn du leen kenn du leen azab yonente bi ni ko yow ca nga bokk anta minhum ah ñu ni comme xam okaasa ibbi na bunt na ko ne kenn ku nekk ñaan dugg àjjana kat kenn du la kenn du la azab moom wax dëgg yàlla man day wallahi wa rabbil kaaba su ne ma woon am nga ko ma ñaan tey tey tey ma fi defaat su ma leeroon ni ba ma faatoo tey jii dugg àjjana bilaa xas xisaabin wala azab ma ñaan yàlla subhaana mu yóbbu ndax xam naa ni moom bu boobaa ba ma faatoo moom coono amutul te doo fa wax bàkkaar doo fa jëf bàkkaar doo fa gis loola naqari doo ko fa dégg beneen waaye ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ma ma bokk ca ñooña mu ne ko sabaqaka biha Ukaasha Ukaasha tam ne Mihsan jiitu na la ci du caaginu kooku bokk ca mais yonent bi moo bëgg a tëj buntu boobu ndax xam na ni su ko ko waxoon keneen ñëwaat mu waxaat ko keneen ñëwaat buntu la boo xam ne day yaatu mu ne ko Ukaasha jiitu na la ci hadis bi soo ko gisee nga mën cee jox ay jàngat yu bëri mooy yow daal li la war mooy daawaal wooteel teg ko tamit nag ci ni ko yàlla subhaana taala bëggee ko yonentam bul jàpp ni nag dina yomb di nga woote ñu ñëw di la noonoo di nga woote ñu ñëw di la bu ndoxataal di nga woote ñu ñëw di la jaay doole di nga woote ñu ñëw di la tuumaal di nga woote ñu ñëw di la saboté di nga woote gis lu ne xam nga yonent yi doon woo ay junni junni nit benn nit lay topp ñaari nit lay topp as mbooloo moo lay topp dunte yem mais dañ lay fexeel am na yonent yoo xam ne dañ leen a rey am na yonent xam ni dañ leen a bunduxataal am na yonent yoo xam ni lu ne yaxyaa dañ ko rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen façon euh, métit bu nekk teg nañ ko ko dem nañ sax ba mëntu faa xajati mu génn Màkka dem Madine waaye nag loolu mën naa mën naa jiitu me du mujj parce que jàpp nañ ni boobu ñoo ko ñoo ko ëpp doole jàpp nañ ni ñoo fay majorité kon mën na noo nokkatu mën na noo def lu leen neex lañ bëgg daal mooy mooy mooy jug leneen lu wuuteeg ñun loolu dañ ko fi dañ ko fiy jëlee ci doole. alaakul xaal bu buñ ko xoolee ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba waa Màkka defee loolu lan lañ ko bëggoon a tere mooy bu fi jottali alxuraan ak sunna